يقول عبد الله وهو أحمد قديم من تماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همازات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرني الحمد لله الذي بجلاله تم صالحات الحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساد لساني نوير جناني سافي أماني وزيد براي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري أهل اللقطة مساني يقو قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi ak fu waay mën ci dinu seetaan ñoo ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi dellu si waat di ànd ak yéen fii ci sunu émission bi nga xam ne moom lañ tuddee jàmm du doy ngeen ànd koog seen xarit seen soppe Cheikh Ousseynou Sy prestis Borom Touba ci Prestige TSTV fii ci ngent di ñaan sunu borom mi nga xam dara teew ko yàlla na yàlla def jam ci mi yàlla ko yàlla def ci dëkk bi def ko ci kër yi ak ci xol yi ñu ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tewu ko yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi dégg su ko defee noo ngi siyaare bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàll technique bi dégg nga muy sëñ mataar noo koy siyaare bu baax ak El Hadji Seen dégg nga di siyaare bu baax sëñ ay Aysa waaye di siyaare ki nga xam ne mooy sàttin na njoon di siyaare ñoom ñëpp nga xam ne tey bu ngeen nu gisee mbaa ngeen déggunu nu yàlla ak seen jëmm la kon su ko defee noo ngi siyaare ki nga xam ne ki mooy xalifatul am di tariqatul muridiya muy sëñ Muntaxa Mbàkke Basiir yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko dégg nga di ñaan naal bi nga xam ne moom la naal fas yéene ko liggéeyal maamam yàlla nañ ko ànd ak moom ci barke Cheikh Xadim noonu la ñuy siyaare sëñ am ni mu sëñ Modou Mbend Fall mu sëñ Modou Moustapha Fall mu sëñ Modou Aminta Fall Ibra Fall Lamp Babil Mouridina waaye di ko siyaare sëñ Moussa Fall mu sëñ Mbacke Fall mu sëñ Amdi Khadi Fall maam Cheikh Ibra Fall Lamp noonu la ñuy sëñ Cheikh mu Cheikh Fall Babi Góor mu Cheikh Ngunda Fall mu Cheikh Saliou Fall maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridina waaye di ko siyaare Cheikh Ndigal Fall mu Cheikh Fall Babi Góor maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil noonu la ñuy siyaare maam Cheikh. Fall mu sëñ Modou Ablaye mu sëñ Modou Ablaye Fall Ndar fii ci penc bi dégg nga di sunu sëriñ di sunu xarit di ko siyaare sëñ Jiili mu sëñ Modou Ablaye mu sëñ Modou Ablaye Ndar waaye di ko siyaare dégg nga ki nga xam ne mooy sëñ Mbàkke Fall mu sëñ Modou Moussa Fall maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridina noonu la ñu siyaare waa kër sëñ Saliou Touré mu sëñ Saliou Mbàkke mu Xaadimu Rasuul sëñ Cheikh Touré mi fi toog And ko rak am Saliou Mbène ak Xaadim Touré ak mboolem waa jàkka murit yëpp no ngi di siyaare bu baax a di ñaanal Baye Gora jum yàlla na yàlla leram leeram ci barke Cheikh Xadim noonu la ñu siyaare soxna Adama Guèye dégg nga ak mboolem njabootam gépp dégg nga waaw di siyaare nak waa ma Allah Njëgeen dégg nga ki nga xam ne kii dégg nga mooy Alaaji Muniir Njëgeen di koy ñaanal yàlla nag fi te ko ak Asbar Njëgeen imam ratib di sunu xarit di sunu lépp dégg nga di len ñaanal ñoom ñëpp yàlla na dol jam jàmm waaye lañ siyaare waa kër Cheikh Abdou Aziz Aidara. naa mi nga xam ne moo fi nekk dégg nga ak ay rakkam sëbbu dégg nga ak taalibu ya ak mboolem waa kër Cheikh na gépp noo ngi leen siyaare bàyyi wunu kenn waaye noo ngi siyaare bu baax baax dégg nga eh, waa kër Thierno Alsaan Diallo ca Jaxaaw waaw Baba Galle ak Ablaye Diallo dégg nga ak njabootam gi yëpp di siyaare dégg waa kër oustaz Mbaye kan dégg nga ki nga xam ne ki mooy góor a kan ak maali kan ak njaboot gi yëpp noonu la siyaare waa kër Seyim Ndoy dégg nga ki nga xam ne ki mooy Baye Yoro Ndoy mi nga xam ne mooy borom dëkk ba dégg nga ak Baye Daam Ndoy dégg nga di ko siyaare Baye Ablaye Seck dégg nga ak ki nga xam ne kii mooy Ibrahima Xalilullaay ñing dégg nga ak imam ratib beeg mboolem ña fa nekk waaye sëñ Abdou Ndiaye sëñ Moon Ndiaye daa bàyyi di ko siyaare waaye di siyaare tamit oustaz Njegen dégg ma moom tamit a ah, ak waa jumaa ji yëpp bàyyi wuñu kenn di wax ne noo ngi siyaare sëñ Mbay Si man ca Tiwaawoon dégg nga di ko ñaanal jàmm ak wér ak gudd fan néegu yàlla bi yàlla na ak jàmm ak salaam ak taalibe Cheikh yëpp noo ngi leen di waaye di siyaare it dégg nga waa kër dégg nga Canaba dégg nga ak seen ki nga xam ne mooy xalifa bi ak mboolem waa Thiénaba gi yëpp Ahmadou Cheikhou dégg nga sëñ Jibril waa kër sëñ Modou Tara Xaar waa kër dégg maam Baye Modou Fall bàyyi wunu kenn noonu la ñu siyaaree dégg nga waa Njaasaan dégg nga ki nga xam ne mooy Cheikh Albekaay Kunta ñoo ngi koy siyaare bu baax dégg nga di ko ñaanal yàlla guddal fanam wéré ko ak waa Njaasaan gépp waaye di siyaare sama xarit Cheikh bu Jóob dégg nga di jànkat bu mag dégg nga noo ngi koy siyaare bu wér dégg nga noonu la ñuy siyaare dégg nga waa laayeen waa salsali waa dabaax yi waa wahabit ak ñaseen di ko siyaare dégg maam mboolem ummatul islaam gépp ba ci waa daak bi bàyyiwuñu kenn fu ci waay mën a nekk rek noo lay siyaare noo ngi ñaan suñu boroom mi nga xam ne moom moo yor te man lépp yàlla na yàlla yëkkati lislaam daaneel kéefër ci barke Seydina Muhammad salaa sallam di wax ne nag noo ngi siyaare bu baax a baax tey ñaan sunu dom ji nga ne nga muy Pape Doumbouya di borom télé bi nu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam wéral ko kàttanal ko nal bi nga la am pour defal ko dégg maam liggéeyal ko lislaam ak askan wi yàlla nako ko yàlla defal lu koy njortam yàlla na ko yàlla musal ak lam ak lépp luy lore ay pexe yi noonu yëpp nga ndax Euh, Pape nit ku baax la nit ku gore la nit koo xam ne kii dégg maam ku am jàmm la ku bëggula tas yaakaar noonu lañu ñu siyaare dégg ma soxna Kumba Tine di aawoom waaw ndax aawo moom bu la jigee rek sa lépp dina baax waaye di siyaare soxna Faama yi tamit noonu la ñu siyaare dégg nga soxna Bouchra dégg nga ak seeni njaboot ñoom ñëpp di leen ñaanal Baye Seydou Doumbia ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax di way juram ak soxna fant Diop dégg nga noonu lañ siyaare seen tante dégg nga maam muy soxna jàngo dégg nga ak waa kër gi yëpp di wax ne nga xam ne moom prestige noo ngi siyaare ani soxama so Adja Binta dégg nga ak Yamar sek Cheikh Yamar waaye soxna Nogoy noo ngi koy siare waaye di siare tamit ki nga xam ki kii moom mooy nga mm, Khalifa Fall dégg nga di wax ne nag ñoo ñaan sunu borom. mi nga xam ne ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na yàlla dool jàmm ah, réew mi réew lislaam la te it dana wax ne réew mi kenn mënu koo xar ñaar lépp lu mën a am rek dégg nga nanu fexe rek ba dégg maam jàmm di am su ngeen gisee émission bi dégg nga bii ci tele bi ak bi nga xam ne moom laay def ci rajo bi yépp jàmm du doy laa ko tudde ndax jàmm ci la lépp ne ndax sunu sàng bu tedd bi muy xaadimu rasul dafa wax ne jàmm de gisuma lu ko gën fii gisuma lu ko gën fee ëllëg yowmal xiyaam te tey jii dañoo fas yéene dégg ma ànd ak yéen dégg nga ci waxtaanee ci xas de sëñ ak baax sëñ liggéeyam dégg nga waaye dañ koy ànd ak sunu doom dégg nga sëñ Fallou Guèye incha allah xam naa ne léegi mu agsi daa nekk ci yoon wi waaw su ñëwee rek incha allah dinañ ci ànd ak yéen. waaye di leen wax na rek ah xew-xew bu xew ñépp dégg ma dañ ko war a bàyyi xel dégg nga rawat na nag bii di poroxaan ki nga xam ne kii mooy soxna maam jaaratullaahi buso dégg nga di jël ku tedd di borom bis bu màgg di ku ragal yàlla ki di jaamu yàlla ku bëgg seydina muhammad sallallahu alayhi kuy jaay nelaw jënde ko déeyaale yàlla ki nga xam ne kii dégg nga dara ñoru ko dul yàlla yonent ak sangam mu tedd boobu dégg maam muy Maamoor Anta Sali ñaan yàlla na yàlla dool leeram taasu ci barkeem ah bis bi le vingt cinq la kon ñoo ngi ci woo ñëpp rek le vingt cinq dégg maam janvier nga bari na ci daayira yi yoo xam ne yi dégg ñoo ngi leen di wax ne dégg maam nanu góorgóorlu dégg nga taxaw ci sas yi ak wàccaay yi ak lu kuy dem dégg loo man ci lu baax dégg maam nga yóbbaale ko dégg nga waaye itamit ba ci yi nuy wax ay yére yu ñu yóbbu dégg ma di ko joxe soxna jaara waru nek ay yere yu màggat dégg nga xam ngeen ne soxna jaara solu ko waaye nit ki li ngay joxe rek moom lañ lay jox kon nañuy wut dégg ma ay yere rafet dégg nga di ko joxe ndax diñ koy jox ay jullit lañu dégg nga donte duñu ay taalibe sax waaye ay jullit lañu dañ koy jox te yàlla te lu yàlla kuy def ngir yàlla dégg nga dangaa war a joxe lu baax dégg nga loolu tamit dégg maam foofu la ñuy siyaaree itamit dégg maam sëñ Moustapha Mbacke imam Poroxaan mu sëñ Abdou Khafour Mbacke mu Maamoor Jaara nga xam ne ku dem Poroxaan incha allah da nga ko fekk dégg ak doom ju tedd ju baax jooju mu Cheikh Mbacke imam dégg nga ak mboolem taalibe yëpp dégg waaye nga xam ne Poroxaan waxuma la dara waaye sëñ Mountakha Mbacke ku ko fonk la dégg maam ndax sëñ Bachir Mbacke waajuram nga xam ne bisil bachar mu bachir bi basir la nasir kon ñi nga xam ne ñoom ñooy daayira yi nañu daje nañu waxtaan di nga sas yi na dugg dégg ak jaayante yi nga xam ne ñu ko war a jaayante te borom oto yi tamit dégg na nañuy daw ndànk nañu wàññi paas yi te xam ne jaamu yàlla waaw soxna su tedd dégg nga moom lañuy ñuy dem siyaar ji ku dem ba gis barabam bee xam na ne kii soxna su tedd la xam ne kii am na ngërëmal yàlla dégg nga waaw kan mooy waajuram soxna astanawel kooku damaa wax ne loolu rek dooy na dégg maam ci garaat doy na ci wàccuwaay dégg nga kon su ko defee noonu la ñuy siyaaree dégg nga mbooleem daayira yëpp rawatina daayra bi nga xam ne mooy ni'mata rabbal alamin dégg nga ak daayira sopp maam jaara bi nekk tubaab Parcelles unité 2 nga xam ne ñoom Baye Saliou Ndiaye moo fa ne di jëwrin ànd koog sëñ sàmba waaye mu Ndiaye Mbaye wàlliyu waaye ànd koog dégg maam sëñ Aline Mbaye waaye ak sëñ Murtala dégg nga ak kuréel gi ñoom ñëpp dégg nga ñoo ngi ca wàccaaya ñoo ngi taxaw waaye ànd kook jëwrin seen jëwrin bu jigéen muy kan muy soxna Ndey Juuf di seeti buur Kumba Ndoofeen Juuf di borom pas-pas bëgg sëñ Tuubaa lool dégg nga ba nga xam ne daayira bi saa bu nu ayee daayira bu fekkee ne amul koo jël naan indi leen ko ngeen def ko ci kër ga kon dégg nga maam ñoom ñooy ànd ak maam jaaram bu ànd ko dégg nga mboolem soxna yi soxna ñilaan sama jarbaat dégg nga jàllo ak mboolem soxna yooyu yëpp dégg nga ah ñoo maam jaara jeng ñoo ngi leen di siyaare ñoom ñëpp bàyyiwunu kenn dégg nga yàlla na nu dem ak jàmm te del seeg jàmm bis bi nag dégg nga nu xam ne tamit le douze bi kan moo ko aye mooy soxna Nafi soxna Nafi Seck dégg maam at mu ne foofu la ñuy waajalee dégg maam pour dem poroxaan bi ñu nag waa daayira bi yëpp dégg nga nuy siyaare nag sunu jàmbaar bi mag dégg nga mooy Idrissa Gaye Alaaji Idrissa gay at mu ne des mois moom it da si taxaw taxawaay bu rafet ànd ko njabootam kon noo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla gën a guddal fanam wéral ko kon su ko defee nu xam ne rek soxna maam Jaaratullaahi Buso dégg nga mooy ki nga xam ne kii ah, mooy jigéen ju mat a roy dégg nga jigéen ñi nañu roy dégg man soxna maam Jaaratullaahi Buso dégg ndax bépp jigéen boo xam ne roy nga ko na nga xam ne dégg maam so jàppee eh, te bàyyi woo di nga am ngërëm dégg nga te say njaboot dinañ barkeel waaw ndax jigéen joo xam ne ji mokkal nga alxuraan mokkal mboolem fànni téere yi xam-xam yépp dégg nga nga man ko dégg nga boole kook ragal yàlla ak di jaamu yàlla ko kook dégg nga say dëkkandoo nga am ak ñoom jàmm say njëkki jigéen dégg nga amalen amal di bale ba baleel waa kër gi ak ñeneen dégg nga di rootal ay nit sax di len jox damaa wax ne kooku jàmm rek lay dox moo tax mu am jàmm moo tax mu am kenn lu kenn amut ki mu am kenn amu ko muy xaadimu rasul dégg nga boo xoolee waxuma la dara waaye ay sëtam rek li ko tàmbalee sëñ Modou Moustapha Mbacké dégg nga ah nga ñëw dégg nga di daw ba ci dégg maam ah sëñ Abdou nga ñëw dégg maam sëñ Abdou Khader ñëw Serigne Saliou dégg nga ngay ñëw dégg nga ba ci ki nga xam ne ki dégg maam mooy ah, sëñ Baara Mbàkke borom kàdd gi nga xam ne sëñ Baara wax na ne sëñ bi ah, daa am bis dégg nga keroog bi sëñ Baara di gane àddina keroog dégg maam dafa ñiis leerut dégg nga maam Serafal dégg moo wane dégg ñëw sëñ Baara daa ne ah sëñ ku tedd ki day Xaadimu Rasuul day am gan tey te moo tax jant bi tey du du feeñ du génn. ndax gan gi kat daa jël tànk bi teg ko ci jant bi moo tax jant bi du fenk dégg nga kenn du ko gis tey te kooku mooy kan mooy Serigne Baara Mbacke borom kàddu gi dégg nga déggal ma lii kooku nag dégg maam Serigne Baara Mbacke borom dégg maam mu naawir bunyan niyaan dégg nga damaa wax ne moo tax Serigne Baara dégg maam soo ko gisee dégg maam bokkul ak leen ndax ñoom seenu gëm dégg nga dafa landi dégg nga kon su ko defee incha allah taala noonu rek. lañuy ñuy toppee dégg maam njabootu ko sëñ bi nga xam ne kenn ku ci ne dégg bi nga toogee da mët sëkk dégg maam ki nga war a doon mooy sëriñ bi toog toogaay bu rafet ba ci sëtam yi sëñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne moo fi toog sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér sëñ Muntaxa Mbàkke bi mu toogagul lu mu am sëriñ Tuubaa la ko jox lu mu liggéey sëriñ Tuubaa la ko jox xelam ak xalaatam ak léppam dégg nga sëñ la ko joxoñ dégg boole kook di jaamu yàlla nag di jàng alxuraan di jàng xasaay sëñ tubaa yi dégg nga ba yàlla def dégg maam mu daal di toog moom sëñ Muntaxa te way juram dégg nga moom mooy sëriñ Basiiru Mbàkke mooy borom mbég mu nga xam ne mbég mu ànd la xufe ba àjjana mooy ki nga xam ne kii dégg nga moom la ku tedd ki dégg maam ah, keroog dégg maam bi nga xam ne Serigne Fallou woo na Serigne Bassirou da ko ne Bassirou mu ne ko Mbàkke mu ne ko Bassirou mu ko Mbàkke mu ko bëgg nga ñëw dem soxna si te soxna si muy wax soxna tedd soxna maam jaar fi lay buso dégg nga Poroxaan àll rek la woon dégg nga nga xam ne ngelaw laak poussière baak lépp waaye soxna si nekk farek di jaamu maam am fa ba maam am ci bis dégg nga fexe itamit ñu denc ko foofu ci poroxaan nu koy màggale kon kooku ma ne la sellal na suuf sa defal na ko ba ku fa ñëw sa aajo faju moo tax sëñ Tuubaa joxewul benn rendez lu dul dégg nga poroxaan poroxaan la wax ne soo dikkee fekk ma fa ma faj sa aajo boo ne dis ma fekk la faj sa soxna si nag foofu yi nga xam ne nag muy poroxaan dégg nga nga xam ne soo demee boo ko gisee boo gisee dégg maam na nuy range ak foofu na mu mel nit ñi dégg maam ah, raj raj loow ji dégg nga gis nga xam ne lu baax rek moo fa am waaye wuy juróom ba dégg maam moom sëñ Basiiru moo muy sëñ Basiiru keroog bi ko euh, ku tedd ki sëñ Fàllu yónnee ne ko demal nemmeeku ci dégg soxna si nee na keroog dafa dem solu ba pare daal di ñëw bi mu taxawee dégg maam boo ko xoolee sa xel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek lay dem moom sëñ Basiiru Mbàkke waaw moom boo ko rek di nga ak kaala gaag lu ne ci dégg maam wax nañ ne yonent bi rek la sa xel di dem ndax taaram bi waaw sëñ Basiru keroog di nga wax ne bi ne ko di nga dem nemmeeku soxna si waaye soo demee da nga dem dëkk bu wax Kaolack di nga soo fa demee ah danañ la tegtal dëkk beneen danañ la tegtal dégg mam ah fo xam fi fii dégg nga dëkk dëkk bi bala ngay àgg poroxaan e, jàppatuma tur wi waaye maa maa ngi koy jégglu mu ne ko soo àggee foofu dégg maam ah danañ la tegtal poroxaan so demee poroxaan dañ la danañ la woon fi soxna si tëdd dégg keroog bi mu àggee ñu ne ko gis nga ñax male ngay séen te mu wërngal dégg maam ñax moomu dégg soxna si la tëdd wax na <coughs> la dem deng nga daal di ñëw ñax mi wër lépp dégg maa mu béy ko ba mu set daal di toog jàng fa alxuraan ba alxuraan di jeex deng nga ba mu jàngee alxuraan ba mu jeex ci la jël daal di ñaan daal di fay jóg batiku ana fu mu jëm ma ngay ñibbisi keroog bi muy ñibbisi dégg nga ba muy jàkkaarloog Serigne Fallou muy bëgg a wax Serigne Fallou ne ko waay waay looy wax ah ah looy wax ba ngay ba ngay ba ngay dem dégg maam pël bi nga jëkk a daj nga ci kaw maam ah ah bu mag boobu dégg nga ah nga jóge fa dégg maam defaat dajawaat ak beneen pël bi kooku moom mo la tegtal ah nga def bi nga àggee ci dëkk ba ka la tegtalaat beneen pël bu màggat boobu dégg moo la tegtalaat dégg maam barab bi ba nga fa demee ba jàng ba pare dégg nga ah ba ñaan waaw lan nga fa nemmeeku mu ne ko xanaa benn biddiw bu rëy dégg moo fàqe ci wet gi rek daal di jëm naaw rek wuti asamaan mu ne ko ndax xam nga biddiw boobu mu ne ko déedéet mu ne ko kooku mooy maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridina bàyyi sëñ Modou Moustapha Fall ak Basir Fall ak Assane Fall ak Cheikh Moutada Fall maam sëñ Modou Mbend Fall sëñ Modou Aminta Fall maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridina nee na kooku keroog moom moom moo nekkoon foofu dégg maam keroog lay do lay dog dégg daal di naaw mu di ko xool dégg ba mu dugg ci asamaan si kon maam Cheikh Ibra Fall kenn du moom kon nu xam ne dégg loolu fan la ko kiyee dégg maam mooy fan mooy poroxaan waaw ñuy wax nag kon poroxaan di ju mbaax jooju dégg ngeen liñ ci wax bari na waaye ki ko jël dégg ma indi ko ci kër Maamor Anta Sali mooy soxna ma Anta Njaay loolu itam nettali nañ leen ko du benn du ñaar dégg nga ah, bi mu dikkee ci kër gi dégg ma ah fekk na fi soxna waaye dégg maam la mu man ci liggéey dégg ma ak man koo taxawu ak mën koo def dégg maam benn jigéen dabu ko ci dégg kon kooku nag su yàlla defee dégg mu am bis muy màggal màggal poroxaan ñu war cee dem dégg kon nañu xam ne foofu jaamukaay yàlla la nañu waaj dégg nga lu waaye man nga def ko ndax sëñ bi ma wax ne soo defee loo mën ma defal mënul mënul defal lu la jomb waaw lii ku tedd ki moo ko wax kon ñun dégg nga war ñoo gën lax saayu dégg nga taxaw kon noonu la ñu bu baax a baax Xaadim Faal ci gent dégg nga ak sëñ Moustapha mi nga xam ne tubaarkàlla yàgg nañu ànd ak ñoom ci daayira yi di soññ daayira yi nga xam ne ñoom la at mu ne ak oto yi nga nga xam dem nañu ba am kër ca Poroxaan ci seen bu mag dégg nga bu baax baax sëñ Modou dégg nga nga xam ne muy soldaaru Serigne Touba bis bi foofu boo fa demee ca këram dégg nga ay valise lay teg ay waxande gaal lay teg ay yére di ko joxe boole ko togg yore dégg maam fanweeri néeg ak ñett dégg maam xoolal loolu ah fanweeri néeg ak ñett la fa la fa defar nga tëb pour dara pour taalibe yi ak teral leen nag yi ak xar yi ak béy yi ak ginaar yi lépp dégg maam dafay kii waaye ñu ñuy sant baax nag sunu doom ji nga xam ne da cee jàpp wér wér muy sëñ Mouhamed Mbaye Mouhamed Mbaye sunu doom la waaw Mouhamed Mbaye nit ku baax la Mouhamed Mbaye doom la joo xam ne ji dégg nga taaw bu taawee ko wul la taaw la boo xam ne bi dégg maam bu jóg rek xam ne dégg maam ndey ju baax la am waaw buy juróom wa nday ndey ju baax la am Cheikh Mouhamed Baye way juram bu jigéen ku baax la ku ragal yàlla ku bëgg Seydina Mouhamed waaye ku nangul way juram toog fa dégg ma di ko liggéey liggéey bu am solo dégg ba tey jii mu am ku mel ni Mouhamed mbay mii kooku moom wax dëgg yàlla méritoo na ko kon Mouhamed Mbaye di sunu doom dégg nga bëgg nu lool dégg nga di nu defal ay teraanga noonu lay def leen ñëpp ay teraanga kon ñoom bu bis ba jotee foofu poroxaan noonu la koy defe waaye màggalu tuubaay tamit noonu la koy defee dégg nga di teral nit ñi ba bis bi moom lay defal way juróom fii sëñ Abdou Karim dégg nga sàmb nga xam ne ba def na ñeent fukki at nekk ilimaanu dégg maam fii dégg maam ci Touba Thiès di jiite nit ñi julli waaw way juróom ba dégg maam kon su ko defee noonu la ñu siyaare Serigne Fallou dégg maam di sunu doom di doomam dégg nga ak ñoom ñu mu àndal ñëpp dégg nga ci barke Cheikh Khadim waaye noonu la ñuy siyaaree itamit dégg maam waa kër dégg maam Serigne Fallou Mbakke gi nga xam ne sëñ Ba sëñ Baara nga xam ne moo nekk fii dégg maam ci àngal sëñ fàllu dégg nga ñoo leen di siyaaree ñoom ñëpp dégg nga di ñaanal sëñ fàllu mu jiitu yal na yàlla dool leeram ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye di sant bu baax nag ñaan waaw ndax yàlla bi nga xamee ne dimbal nañu rek ba def nañu ab taalibe dégg nga. xam ngeen ni bis maam la kenn ku ne yaa ngi waaj sëñ Saaliw Sekk bisam bi gis ngeen ko le 6 la dégg nga bisu le 6 bi dégg nga programme yi daa bari lool suñu mbokk taalibe yëpp dégg nga maam nekk ci waaye dégg maam lépp di ak cant rek dégg ak ngërëm dégg nga ki nga xam ne kii moom mooy euh, dégg nga mooy euh, alaaji mbuub bisam bi la 20 la waaw kon kooku tamit dégg nga maam ñu waajal ko dégg nga waaw na ñëw bisimilah kon su ko defee rek eh, ah, sëñ fàllu xam naa ne mu ngi mu ngi doog a agsi dégg nga ndax boobu ba léegi maa leen koy wax dégg maam bu dikkee xam naa ne temps bi li sax xëy na sax du bari waaye lu ñu ci am rek mu doy waaw mën ngaa takk dégg maam kii bi su ko defee dégg nga ñu daal di ñu daal di tàmbali rek tey fi mu ne nii sànq doon naa ko annoncé wax ne rek dégg maam tey dañoo bëggoon rek wax ci xasida yi rek ak njëriñu xasida yi dégg nga wax na sëñ Tuubaa yow daal loon ci indi rek dégg ak nu mu mën a toll rek dégg nga kon su ko defee sëñ Fàllu nga mën a nuyoo rek dégg nga euh, da daal di tàmbali daa rek dégg nga maam li des ci waxtu yi moom say waxtu rek lay doon waaw waaw kon jërëjëf ah sëñ Fàllu sëñ Fàllu Géy dégg nga te ab ngéyeen dégg ne sëñ Tuubaa moo ne fu ngeen gisee ku sant Guèye na ngeen ko warmaal ndax sëñ Adama Guèye moo jëkk a jébul ci man ngeen ñi ma xam yëpp dégg nga nitu alxuraan ak xasida sëñ Tuubaa waaw kon bisimilah kon sëñ Fall bisimilah kon doon indil dégg maam ci kii bi gannaaw bi nga nuyoo waaleykum salaam kàddu gi ne moom na na na bu baax ndax nit ñi mën koo dégg sallallahu alayhi wa sallam oui moom amit waaw waaw dëgg la waaw noonu lay ziar baax waaw dëgg la wallaay waaw waaw ñëpp rek waaw bismillah waaw waaw mhm. bismillah waaw 1892. Mmh. marché bi moom la wul Fawcet. est-ce que. maanaam bi ñu sañ Touba. Mmh. la ko bind. Mmh. doon xes dëgg bu mu fonkoon lool. yes ñu waxoon ne daal. waaw marché suñu mbir Moussa. ak sama Fallou. dëgg la. ba dëgg ñu wax ne sa période bi Cheikh Mamadou Fallou la ko sëriñ bi rafetale. waaye ku ne xam ne Fatou Cheikh Ibrahima sëriñ bi rafetale. Ah, waaw Cheikh Ibrahima maam Cheikh Ibrahima. waaye Cheikh bi. indi mi indiwaat sëñ Fall bi tax na. mu mhm. fayaat bi xas dëgg. waaw. muy xas dëgg boo xam ni. Mhm. salawaat la. waaw est-ce que. sëñ taale ko ci atum waam sasi bi. waam sasi. kon day mel ne kon ñoo wax ni 1889 la. 88 mhm. ñooña. la seen wax bi gën a dëppoo. dëgg la. ndax wasalli yaa wal tusalli ala nabi haashimi alami. bu it boobu. bu jëlee Hachim yi boole ko ñii ma Wasachin day jox Wam Sassine. Wam Sassine waaw est-ce que. kon dafa mel ci Batou Rajes. Mhm. Batou Rajes mooy Moustapha Moustapha mhm. am na juróomi juróomi bunt xas léegi juróomi bunt am na ko. suñu boobu dé tëjee ko tëggee ko aaya suñu bi të tëggee ko aaya. waaw inna allaha wa malaikatahu. waaw. allahu akbar déggal ma lii. kon xes bi juróomi bunt la. juróomi bunt. juróomi bunt. Mhm. bunt bi ci njëkk fanweeri woy la. ak mhm. benn. dëgg la. ba ci njëkk mooy ahadu salli waxtu salli musamada ala lisi samaytuhu muhammada. tey. ba ci. aatini al azama wal kitaba wa taqini al xisaaba wal xitaaba muy fanweeri waaw est-ce que ak benn. buntu ñaareel bi. Mm-hmm. nekk juróom-ñeenti way juróom-ñeenti bay. Mm-hmm. tàmbale ci allahu salli abadan wa sallima ala mm-hmm. la si jaxaltoo bi sulama. wa ca ala la si jaxaltoo bi sulama. wa ca attax di mën na waraati wa ca li kulli saa xeeraati. xam nga foofu la bay bi buntu ñaareel bi yam. waaw. buntu ñetteel bi moom moo ci ëpp soixante neuf bay. bay waaw est-ce que. nekk yàlla yaa est-ce mu baax. te. kon xëy na loolu am dëgg la. waaw. kay loo ci mën rek dégg maam nañ ko dégg moom. waaw. est-ce que. moom jaaxal loolu laaj sëñ bi sëñ bi loolu nga nekkoon. Hmm. ak jaamu yàlla la. Hmm. ba noppi bàyyi na jaamu yàlla yu bari. loolu yi nga doon def moo ko tax. parce que. xasida la boo xam ne. waaw. te ñun sax daaw mu ngi daa wax ne moo ëpp loolu xasida bi jàll ko maraas bi ngeen xaar benn benn benn xaar benn béytam. benn béytam. donc moo ëpp loolu xasida bi jàll ko maraas bi. laa ilaha illallah. xaar moo sëriñ bi wax. te laa ilaha illallah. xasida boo xam ne wax nañu ci koy foo gis jàngat maa ko gis. léegi day mel ne day jàpp ba noppi. Hmm. waaw. Ah, waaw. waaw. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. ki koy jàng. Hmm. il faut neex fii il faut neex fii. allahu akbar. cey. moo tax jàngat bis foo xool day mel ku jàpp ba noppi nii rek. waaw day day liis day liis <laughs> est-ce que. ndax fóon bi yonent bi du fóon. sa waaw est-ce que. soxna moom jàpp su borom borom xam. moom màggal mu jege si. waaw mu ngi noonu. moom kay léegi ci laa doon wax tuuti rek. waaw waaw. ndax yow moom ku la xam. waaw xam sa diggante ak soxna si ak màggal gi. wallaay màggal gi wallaay. xam ne. waaw moom tarkalla ñu ngi ñaan suñu bopp gën a guddal fan bi. waaw amiin. gën a yàggal taxawaay bi. amiin ndax yéen yéen a xàll yoon yi ba ndaw ñi ñun ñii ñëpp. waaw mën a ñëwee. dëgg la mën a ñëwee dox mën a ñëwee wax. wallaay. ci sëñ bi ndax ci leen leen fekk. <laughs> wallaay dëgg la ku la xam ne xam na sa diggante ak màggal kon ñoo lay nuyu jërëjëf tubaarkalla. Euh, tubaarkalla waaw waaw. waaw waaw. mun daal si fi mu ne nii euh, nga xam ne ñun temps bi daanaka dégg maam euh, dem na ndax boobu ba léegi dégg nga ci laa nekkoon rek dégg maam pour jàpp rek temps bi pour boo ñëwee rek. ma mën a dugg ci kii waaye fi mu ne nii li mu bëggoon rek. mooy yow loolu mën a jox rek dégg maam ci. yaa ci xasida yi dégg ma wax nga nu dégg maam ma fàttali si dégg maam euh, moom garaatam ni mu toll te xëy na sax waxoo lépp waaye dégg dem soxna maam jaar laay busoo dégg maam poroxaan gi dégg nga tamit lool ci mën a jox rek dégg maam nga jox nu ko rek waaw ndax li ànd na ku ne màqaan màqaal waaw ndax soxna la waaw kay ci ak ndawam. ñu hmm. mu feeñee. waaw ci saa waaw 1833. waaw. feeñ ci soxna moom as astawaal. Hmm. doon jàmbaar. Hmm. nii ñu ma daan solo loolu daan sol jàllaabi la daan sol moom soxna astawaal. est-ce solo sol jàllaabi teg ci. <laughs> jigéen ñi. waaw est-ce que góor yàlla yi wër ko wër jàngal alxuraan. jàngal ay kilifa boo xam ne ci réew mi. bu soxna astawaal moo leen jàngal. allahu akbar. daan jàngee leen xam-xam. moom sëñ Moussa bi mi nga xam ne mooy wajur soxna maam Diarra Bousso moom moo ko jàngal alxuraan waaye xam-xam moom soxna Asawar moo ko jàngal. moo ko jàngal cey. nga xam ne bi mu demee ba am moom sona maam Diarra. Hmm. fukki at ak juróom-ñett. Hmm. la tàmbali wuutu soxna si ci daara ji xam da ko bu wér sax néew koo xam day dem ak ñoom waaye da ko wuutu yor daara ji di jàngale. di ak xam-xam. est-ce que ba matee dem. borom euh, kër waaw. su ma li nga jafe-jafe yëpp dem ni. Hmm. na ko soxna Anta Ndiaye. sàkkoo ci Mamoor Anta Sali ba mhm. Mamoor Anta Sali def def loolu lii xas googu ñuy wax ba ba ban ko tiimee di ko di ko di ko ni ni jigéen demee nii ci néegam mhm. di ko wax di ko wax jigéen daawul wax keroog suñu muy waaye ah, dañ ndax man ngeen ma may ma wax ñun ko bismillah mu ni ci leen kaa ngi alquran ñu ko muy yëpp ci yëm ci maakaana muhammadin aba ahadin mu jaay ko warake rasulullahi ba aaya ba jeex muy leen bu doon xaatima nabi ine bii ñëw de ma xam ne kon fa may dem danaa fa dangay ngay déglu lu wax na waaw mu ne fa ma jëm hmm. danaa fa jaamu yàlla liggéeyal fa sama borom kër hmm. ba am fa hmm. koo xam ne ab yent lay waaye nag danaa fa am koo xam ne fi mu tuddee yent bi tudd la <laughs> ilaha ba mu demee ba àgg ci kër ga waaw ñu ne fa ab diir ba loolu ñu wax ngàmburaan xam nga ngàmburaan ngàmburaan mooy ñu reer bu noppi waxtaan bu yàgg woo ñu reer waaw waaw soxna Anta Ndiaye daal di woo soxna Moussa ne ko maam jaar xas. xas. waaw. Mm. ne fii man de fii ma nekk. Mm. danaa fi jaamu yàlla liggéeyal fi sama borom kër. Mm. ba am ak weer loolu soxna Anta Ndiaye wax. <laughs> ay dégg loolu waaye est-ce ba ko la. est-ce que. su bëgg mu ne soxna Anta man de fii ma nekk. danaa fi jaamu yàlla liggéeyal fi sama borom kër. ba am fi asamaan. est-ce que <laughs> asamaan bi moo tiim jant yeeg weer bi. waaw benn <laughs> asamaan moom waaye ñoom ñëpp la ñu xasoon am na. dëgg la xam na ni mooy so si affaire. waaw waaw. meññ si maam si Anta Mbacke borom gaawaan. dëgg la bu weer. wallaay dëgg la. c'est kenn nag ñu meññ Cheikhul Khadim. waaw muy asamaan si. muy asamaan si foofu moo. ñoom te. tolloon. dëgg jigéen ñi baax kon ko wax ne foroxaat ku fa dem fekk moom. moom sukkuli boo nee jàng jàng mooy ngeen nii rek sigiwaat. waaw ma fekk la fa. waaw <laughs> est-ce loo ko ñaan bu nangu. est hmm. moom ñaan a ñaan. day nangu waaye ñaan bu hmm. njëkk a si nit yi. waaw moom la ko sëñ bi la ko kon béy yi ci yi mu ci wax foofu ci moom. waaw nga xam ni dafa mel ni day wax na wa naaji ne wa jëmi al muslimina maan wa naaji walidati amina yàlla ma xam hmm. walidati mooy sax wajur bu jigéen waaw jigéen waaw xasida tawassul di xasida ñaan la ilaha illa waaye xasida googu de ma laal ci tuuti rek nga ne xasida tawassul la hmm. fi ne sindi di hmm. sëriñ bi bi ñu koy bind bi ñu ko laajee ni ko sa diggante sindi ak Ecfini ni mu mel waaw xasida Ecfini waaw mu ne sindi di bi ma koy bind ci Farba laa toll ci Ferba. waaw waaye Ixfini ñu koy bind li ma doon sàkku ci sama ngërëm sama boobu lépp daa fekk mu am ko ba noppi. allahu akbar. te te si ni mu amee doole. te si ni dafa am doole. nga xam ne xasida tawasul la sëñ bi. bi mu koy bind. Hmm. dafa woo li li suñu borom gërëm lépp ginnaaw ba mu woo yàlla ba noppi. waaw ñu yàlla gërëm ak lu yàlla gërëm. waaw sëriñ bi dalaa woo ngir tawasul ci sa barke. est-ce que laa ilaaha suñu borom la tàmbalee yàlla. suñu hmm. borom ni tekk na sëriñ bi lu muy wax. Hmm. mu ni biir Moustapha teg ci yeneen bi. laa ilaaha illallah indi ñaar fukk yeneen ak juróom yi alxuraan indi seen tur yëpp. waaw ba ñoom ñëpp ni tekk. waaw mu jàpp ne day ñaan taxul mu ñaan. waaw. mu ni wa yuusufin wa fi isxaqin wa min anbiyain wa rusulin lakk yàlla tey dëgg mu ni wa min malaayika <laughs> ay wa malaayika yëpp <laughs> wallaay ñooñu ne joon taxaw di laaj si bi lu muy wax taxul mu ñaan waaw mu ni wa bi saxaabati su sumal awliyaa iman wal aamilina min al axbaar yi saxaaba yi waaw borom xam-xam yi woo fóor yi waaw ak borom xam-xam yi jëfe seen xam-xam ñu yaakaar fa la yam. mu ne bi ma lekkin sil masaya woo borom ñeenti ngir yëpp. waaw est-ce que. est-ce que ñaan waaw. ñu yaakaar fa la yam mu ne wabil xuraani woo téere yi. Mm-hmm. ñu yaakaar fa la yam mu ne bil wal xalamil maxfuus woo law xalima gaag la sëñ lépp rek. waaw doo ko commencé ñaan. c'est bali salaati wa taslimi wa sahbi wal aswaji allah. day saa ndax sekk mu ngi ci wax dammiral kula nekk. foofu la secret si nit moom boo fa àgg boo ko jàngee ba àgg fa. soxla soo am foofa nga koy dugal doo ko <laughs> ce que dëgg la loolu. bu la ah day tëdd naa yàlla yàlla. est-ce que. wooyee moom la waxoon nañ ko jàng. est-ce que wooyee. waaw ku mokkal xasida si nit na ma ko jàngal ba ca mbàkk dóodi. waaw est-ce que ci mbay ma dëkk Longoor. Longoor. ni maa ko mokkal ba mu naan ko na waaw góor muy wax boo jot wax dem nga naan te way wa. waaw naan ku la ah mu naan ko doy na xam la lu suy lu mënta àgg am <laughs> est-ce que. wallaay dëgg la xasida la boo xam ne. waaw moom weer yu sono yu sono hmm. moom du ko jàng fanweer ak ñett di ko ko jagleel ndax moom fanweer ak ñett la dugg. waaw moom di nga gaaw a euh, jot lool. est-ce que euh, secret ba am. alaq sedikit digënté ak soxna si dara alaq digël ko ci am est ce est ce que ci biir wéru nga jang fa ak ñett par bis bis bi aksi faaw nga am gis ah lool ngay mënta ñak deug la deug la wallahi deug la wa kon ik fi ni mom de nga lu señ bi digal mom lu ci digal doomu adam mom day xasse karange waaw buñ ko laaje karange ak sindi ak ik fi ni day ik fi ni mi ngi melni mi ngi melni ku ne ci ci juroom ñaari ponkal wër la gëna am doole ci aduna bi daal ko kooku de xanaa ku dikk ba laal moom da nga ko seetaat ñu ne ko waaw mu ne ifini nag mi ngi mel tata tata nu muy mel. waaw tata. ñu tabax ci juróom-ñaar nga ne ca bu mujj ba. waaw tata bu nekk juróom-ñaari ponkol yi toll ya gàddeewul fële ne fa. ku nekk yor arme yi gën a luur ci àdduna bi. waaw di la garde. di la garde moo ne la la ifini mel. <laughs> allahu akbar déggal ma lool. moo tax néew na lool. waaw kilifa yi xëy te ko bis. ndax wax ko. Hmm. day ci yow est-ce que. gàmmu lay doon takku ci yow. waaw est-ce que. ba keroog <laughs> mu tekk quoi. <laughs> ce que déggal ma lii rek. <laughs> waa dégg naa ci mag daal mu wax ne. dégg nga daal ne ma fii nii. saa boo ko jàngee rek. sëñ Tuubaa nee na am na lu mu la ameel. am na bor bu mu la ameel. waaw daan def ku ko mokkal ci ay jamono. waaw mu warlu la naaru góor. waaw est-ce que naaru góor la daan def. <laughs> est-ce que naaru góor yi jamono yi kat ko moo ko moo la. bu ko bàyyi <laughs> moom day jàng exprimé rek <laughs> que sëggal loolu ah, waaye mag ma lim ma wax dem ma ne eh, lim lay warlu li nga bor bi mu lay ameel bi ci gën a tuuti. te du mu la koy defal. mooy dem àjjana waaye déggal ma lii xam nga sëñ bi doy na waar xam nga fegul ma dégg maam mbooleem dégg maam natt yeeg lépp ak balaa yi lak daara yàllaaw mm-hmm. ah loolu loolu sëñ bi dégg maam lu am solo la mm-hmm. waaw mais jës bu bi nag moom lu mu ci wax waaw nga jës bu mm-hmm. moom mooy jës bu xulóob mooy liy xëcc xol bi min alaamina xuyóo bi di ko jëmale ci li nga ne mooy xay bu ki bëgg bëgg yàlla jaamu yàlla di ko jege. waaw day jàng jël. waaw fi ne bu la ja yàlla tëwee jafe la lool. waaw léeg-léeg nga jaam ko léeg doo ko mën. Mm-hmm. del jàng jël. est-ce que. dana la ci suñu borom nga bëgg ko. Mm-hmm. am Cheikh Amadou Moussa nag la ko sëriñ bi moom jëf. que est que. bu bari doole la moom. waaw ah, kay ndax fi ne. gis boobu mooy boobu nga xam dañuy wax ni mooy. Mm-hmm. mandargay mul gi ëllëg li leen xàmmee. mul gi par sax. maam ëllëg bis bi ñuy dekk. li leen xàmmee. mooy dañuy yëkkati gis bu ak mooy mu xaddimaat. dëgg la. kon jës bu ci xes yi nga xam ne day tax nit ki ragal yàlla. Mhm. bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg suñu borom. Mhm. moom da koy def. dëgg la dëgg la dëgg la di ko jëmale ci yàlla suñu borom. waaw kon kon day xanaa dafa fekk dégg nga léegi rek ñu ngi may wax de dégg nga daanaka waxtu yi dégg maam kii na xanaa da tàggoo tàggoo bu dul tàggoo waaye nag looy dénk dégg maa ñuy war a dem poroxaan ndeysaan jërëjëf suñu sëñ waaw moom di di sant ñëpp xanaa di jiblu nag suñu mbokk téléspectateurs yi kan nga xam ne ñooy seetaan télé bi waaw ci wow ñëw gi nag waaw wallaay wallaay sawar nañ lool sa teel a ñëw waaw noo koy jéglu waaw moom Porokhane moom bis la barab la boo xam ne barab bu tedd la soxna safa nekk moom dañu màggal ci kaw suuf muy soxna bi àdduna soso ba léegi moom rek la ñuy màggal muy soxna soxna soos nag màggal ko dem rek lekk ak naan ak dem déedéet waaye boo fa demee daa am loo fa war a jàngate mhm. mooy lu ko indi fii ak lu ko fi bàyyi mhm. ak lan moo tax nit ñi dafa ñëw waaw ndax dafa jaamu yàlla liggéeyal boroom këram ba am ngërëmam am ngërëmal yàlla suñu borom est-ce que ñu denc ko foofu kon kuy jigéen dem fa mhm. war ngaa xam ni fii kat boroom gërëm moo fi tëdd dëgg la te gërëm li laataa mu ko am lu ne daj na ko ci àdduna est-ce que loo xalaat rek ci kaw la wallaay dëgg la daj na ko dëgg la te boobu jamono métti na woon métti woon lool kon ku fay dem na nga waaj sellal. Hmm. xam ni kilifa bu mag dañuy fekk muy soxna moom jaar ko sa bopp tubaarkàlla ñu ñu ñu ñu màggal ko ci jàmm yàlla jàng alxuraan ak togg ay bernde. waaw ko joxe ndax moom loolu moo doon mbéy moom soxna si loolu rek. tubaarkàlla kon nga xanaa nga tàggoo rek xam naa ne. ak ñuy bokk yi. di ñaanal waa télé yi nga xam ne. waaw waa kay. ñoom seen seen taxawaay rafet na ndax ñu bari koy seetaan. Hmm. émission bi dafa jóge fi bari dañ maa woo ni ma seetaan nañ. wallaay dëgg la ci télé bi kon ñu ngi sant di leen ñaanal di ñaanal kilifa gi. Mm-hmm. suñu yokk ko. Mm-hmm. ñi fi liggéey su borom yokk leen te aar leen sàmm leen. te suturaal leen. amiin amiin amiin jaar bu sa borom. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf kon jërëjëf sëñ Fallou euh, noonu ngi lay siyaar baax Guèye Ndioro Basi ci invitation bi déeg nga xam naa ne euh, yàkkamti woon nañu te nga teel a ñëw waaye lii la yàlla dogal gëm yàlla yomb na waaye li yàlla dogal ci yow nga gëm ko moo jafe kon noo ngi siyaare bu baax a baax waa États-Unis d'Amérique Ibrahima Dramé dégg maam ñu ngi koy ñaanal dégg nga ak mboolem ñam fa nekk ak daayira waaye di siyaare bu baax waa France dégg ma Cheikh Awa Balla Mbacke si dégg maam ak euh, waa Kër Sëñ Touba ga ñoom ñëpp noo ngi leen di siyaare ak mboolem daayira Ndiaye dégg nga waaye noo ngi siyaare tamit dégg nga Jibi Ba dégg nga ca Italie moom tamit dégg nga di siyaare waa bokk taalibe fa nekk ak wajur ya dégg nga di siyaare waa Japon dégg nga sëñ Saliou Baabu di siyaare mboole mbokk yi ak fu waay mën a nekk ci àddina si rek dégg nga di nu seetaan noo ngi lay siyaare waaye di siyaare tamit dégg maam soxna su tedd dégg nga maam ñu koy wax Ndeye Sylla nekk fii dégg nga maam ci ci Chine googu dégg nga maam ñu koy ñaanal booy tourné dégg nga maam ci wetu terminus su dégg nga bi waaw ñu koy ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam dégg nga muy soxna su baax su soo xam si yaay fàll la soo ko gisee rek xam ne ku roy soxna maam maam bu so waaye boo gisee ras dégg nga xam ne kii dégg nga maam ku bëgg maam siyaare ba fàll la kon noo ngi koy siyaare bu baax di siyaare mbooleem soxna yeeg ñëpp dégg nga maam ak mbooleem dégg nga yi ak fu waay mën a nekk rek ñoo ngi lay siyaare ngi ñaan suñu borom yàlla na may dégg maam fekke ak tal kon incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa kay jërëjëf يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد بسم الله الرحمن الرحيم يقول